jëliwaat ñëw man gisuma benn damay gis ñaar ba ñett ba ñeent alors euh, fi ñuy. Euh, euh, Serigne Mara yaakaar naa ni waxtaan bi fi ñu koy tëjee rek mooy nag. Mm-hmm. yàgg nga wax ci influenceurs yeeg ni ñuy ni mm-hmm. ni ñuy doxee di leen moytuloo à chaque fois di leen xoolal seen ay mbir mm-hmm. mais ces temps-ci aussi ñoom influenceurs yi euh, bokk nañ sax ci mbiru rappeurs yi ku ci mel ni lu Brick Paradise ak waa Ngaaka Blindé ñu dugal ci Mame Ndiaye Savon Mami Cobra tey boo dee lancer un message par rapport ak influenceurs yi en général à Adamo keneen ak keneen donc tey message bi ngay lancé parce que chaque jour da nga leen di moytuloo yenn nga leen di la euh, <laughs> waaw xam nga Sénégal nag dafa neex. Mhm. te réew mi jàmm rek moo fi xaj. Euh, muy Ngaaka Blindé Sénégal yëpp xam nañ sama digganteeg moom muy nit ku baax. Mhm. nuyu soxnaam ak waa këram ñoom élage Hadj ak ñoom <laughs> Leuz bu jool sama taalibe yooyu Leuz gëñ naa joxe addi waaye amul solo maam Ndiaye mami euh, mami Cobra. Mhm. waaw ku ku ku ku baax waaye Mamy Cobra moom moom lu rafet rek macha allah yàlla na ko yàlla fay euh, ahlu birik. Mm-hmm. Ara. Ara ak de dégg naa léegi ma wax <laughs> DG xanaa yaa bind. ma dinaa leen seetal de ñëw ngeen ci seetu euh, euh, Mara Niass yónnee nañ ma ko ah Ara Ara dinaa ñëw mbuur de ah te bu ma ñëwee mbuur yéen ñaar laay tëjool ci biiru néeg te dinaa leen seetal. waaw te sax yéen daam lu ma gis ci yéen ara ki si des nu mu tudd DG moom mooy ci am karaw gi waaw kon ara a ah, dégg naa li nga wax de waaye amu problème Sénégal la ñoo ko bokk <laughs> bàyyil ma bàyyi seet gi xam naa bëggoon naa leen a yëral moo tax euh, di santaat nag di mm-hmm. ñi nga xam ne dañuy ñëw ci man di ma seetloo surtout mm-hmm. te te doyloo ma mm-hmm. te yàkkamti wuñ ndax li may wax ni mooy li am te loolooy dëgg man seet bu ñëwee ci man léeg-léeg nga dugal nit mbiram doo gis sax yëfam léeg-léeg ñi topp la na la damaa bëgg nga ñaanal ma ma ne la mënuma laa ñaanal nga may saraxu di ci topp mhm. ndax xam naa ne même buñ jëflantee sax mbir du nga baal ma du sotti du moo tax sénégalais yi bu ñuy forcer mbir mhm. waaye fii si numéro yii nga xam ne wax naa leen ko aw ma numéro Tigo lu dul deux cent deux ngeen di gis muy binde ci suuf képp ku ci woote man danaa la seetal wax la say sarax lépp loo war a def nga def ko macha allah xam nga loolu da waaw ndax numéro tigo bi mhm. nit ñi nit ñi nañ yeewu ay waay aw ma numéro tigo mhm. aw ma numéro tigo foofu laa a ah, tëjee te te est-ce que parfois doo ci nit ñi nga xamante ne déedéet déedéet du ñu liggéey loo moom dañ lay bëgg a seetloo te mhm. alors que yow mënoo leen seetal waaw xam nga sénégalais xam nga lu mu bañ nit nga jël xaalisam na ko ñaanal ma di bolekee ni du kuppe mhm. loolu moo amul saas man dafa nga ne ay kilifa la muskàllaf nga bàyyi looloon seen lépp jox leen ay téléphone muy seenub liggéey mhm. ñuy xooy waaye léeg-léeg yëf yi day xat ba duñ man a wuyu ñëpp léeg-léeg nit woote ci bis bi ma wax la de man li ngay def nga xam ne yëg-yëg laa koy defee mhm. nga woote ci bis bi ma ñaanal la ci bis bi seetal la ci bis bi léeg ma téye fi nit mbir nit ndax gis naa ci mbir man damay seetal nit sax wallaahi gisul barke alxuraanu karim yàlla daf may wan loolu waaye ñii ñëw ci man man de yàlla rek a tax may wax ay nit ñu ma comprendre yi ñëw ci man ak nit ñu ma bëgg ak nit ñoo xam ne musumaa dégg ku ma ci wax baat bu baat bu musul am te doyloo ma ci te yàlla te loolu mooy ak ñaan mm. nit ki ngay ñaan loo da nga koy doyloo ba noppi wóolu ko jox ko confiance kooku lu la defal suñu borom da koy nangu ndax yàlla lim bind lépp ci jaam ñi la ko def man waxuma pour ku ma gëm waxuma pour ku ma weddi ndax damaa xam ne damay dee te bu ma duggee sama bàmmeel sama jëf rek ma fay fekk te loolu doy na ma loolu moo ma gën a lépp ci adduna moo tax ma leen di sant di leen wax ñi seeni liggéey di ñëw yàlla na yàlla barkeel te yàlla ful ko ñi nga xam ne damay jëflanteeg ñoom seen yaakaar yàlla bu mu tas mukk ci àdduna doyloo gii ak kóolute gi yéen a ngi dégg lu ne ngeen gumma gëmm tëxlu na lii sa xam nga sénégalais bëggul gis nga Sonko xam nga lu tax nit ñu topp ko. Mhm. sénégalais bëggul kuy kuy kuy nit wala ko koy tuutal. dëgg la keroog ba nga jugee di yàq. Mhm. am na koo xam ne mi ngi saalam toog keroog la ne tay laay jëflante kii. fekk nit day toog mel ni ku yàqal nit fekk mi ngi koy defaral. keroog buñ bëggee yàq mbiri Sonko am na ñoo xam ne keroog lan adhéré na tay laa bokk Pastef sénégalais loo ko mën a wax. xam ne xool bu baax la yor te bëggul kuy néewal nit doole man lu kenn xamut laa man nit ku waaye di laa nit ku torox laa ah, nit ku suufe laa nit ku nit nit koo xam ne aw ma maanaam fu rek wàcce naa fa sama bopp ba pare sénégalais yi doyloo ma ci loolu kon bu ma ci gis sama bopp naa ciy gis yàlla di jël lii moo am solo te lii mooy dëgg ci man man lii laay dund ku xamul lii may dund nag mënoo maa jugé te xamoo ma moo tax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Dijé sama xol sedd na. jërëjëfati euh, Serigne Mara Niass mu Serigne Saliou donc mi ngi noonu. Mhm. Euh, le voyant du peuple ñu koy woowee borom dëkk bi euh, moom nag. numéro téléphone yooyu di affiché au bas de l' écran 202 63 08 ci la mhm. leen di seetale parce que seet bi dafay wéy 24 mhm. heures sur 24 dafay continuer fii ci euh, Parcelles Assainies mais gërëm nañu quand même ñu doon suivre ñëpp ah euh, internet yi nga xamante ni bi ay soppe sëñ Mara la ñu euh, à travers le monde ñu ngi leen di béggee bu baax noo rëy ni moo nekkoon ci cadrage bi dese moomi sekk mhm. yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana Euh, Serigne naa yaakaar naa ni waxtaan bi fi ñu koy tëjee rek mooy nag. Euh, mhm. yàgg nga wax ci influenceurs yeeg ni ñuy. ni ñuy mhm. ni ñuy doxee. salaamaaleykum mbokk internet yu Feeling Dakar ñu ngi leen di nuyu. di ñëwaat fii ci Dakar dama ne leen mbiri Sonko boo koy seet ci ay article ak ay papier doo ko ci gis kon man passé naa foofu man dimension bi ma nekk fokk ngeen teg pas fekk ma fa ñu man di ànd di waxtaan. mbiri Sonko fu mu nekk kon. mbiri dafa nekkul ci ay ak ay signé ak ay gis bu wax parce que yéen. lan mooy yoon ci Sénégal yéen bu ngeen doon atte yoon rek li wacci taxa taala di atte yoonu dëgg Sonko du ngeen ko ba ci kaso bi lii njëkk a ñàkk yoon mooy Sonko mii nekk ci biir kaso bi ngay ñëw tey naan ma ay article naan ma ay yoon wax ma ci leneen ñu focus ci ñaanal président Ousmane Sonko suñu borom génne ko ci nu mu gën a gaawee. loolu moo ëpp solo sëñ Mara mbir ngi nii. wax ji du du wax neex. Sénégalais yi bëgg nañ nga leeral leen ci parce que. Mhm. yow yaa ñu waxoon. Mhm. Ousmane Sonko da ko gis ci ci palais bi ce que tey jii da ngay confirmer waat même wax sama wax yow xam nga ne man lépp lu ma wax ci àdduna Sénégal man rek maa fi jël ay responsabilité taxaw na nangam xam nga lu tax. Hmm. dama ne Sonko mooy fal kii falu Sonko mooy falu. wala déggoo li ma la wax naa ko bu yàgg na leen dafa mel ne lu yàkkamti tee moo sax jiital diw est-ce que sama wax jooju yéen a ngi koy seetaan Sonko mooy falu Sonkooy fal kii falu ñu ne ma daan nañ ko de mën na leen nañ ko tëj fukki at xam nga wax jooju dafa jot Sénégalais yépp xam ne man ñëwuma ci Sonko rek comme ñëwug yaa ma neex wala comme ñëwug nii dëgg la nag képp kuy nitu système bi wala ngay taxaw wala ngay defi mbir yow moom waxuma la Sonko ci kaso bi waaye dugal nga ci dugal nga ko ci bàmmeel ba ba suul ko ñooñu taxuñu may wax man waaye nit nag bu leen fàtte ne dogalu suñ boroom bii kenn mënu koo fànq te yàlla rek mooy boroom dogal. te mooy borom fa xaaloo li maa yuridu bu leen di fatte hmm. man sama position Sonko man xam nga ne bu ma gisoon dara ci Sonko muy aw naqar damay ñëw toog fi wax ko am déet waa ku ànd ak Sonko ba ne leen damaa gis ñu jàpp ko suur nangam. waaye kon man est-ce naa leen di nëbbu dara bu ma ko gisul woon ci palais bi damay ñëw ne leen ah kaay leen président Ousmane Sonko gisuma ko ci palais bi waaye loolu kenn du ma ci ray kenn du ma ci dóor